بدون ويسو لي نجي كوخ موي لان موي تصوف تصوف القران الكريم تزكيه لوكوي تولي سنة سيولتة في حديث سيولتة في بوتي لغاية ريكس سيولتة في كتن دي الإحسان برام خم خم منك نيو تود خم خم بي علم تصوف ولا علوم تصوف وعي بين خالد الإسلام بو خم ني xam nga ne lislaam ñetti xaaj la liy firndeel loolu mooy xadis sayyidina Jibril ba mooy xadis boo xam ni ñenn ñi sax dañ ko tuddee ummu sunna mooy bi sayyidina Jibril ñëwee di laaj yonente bi lan mooy islaam mu tontu ko ci mu laaj ko lan mooy iimaan mu tontu ko ci mu laaj ko lan mooy ihsaan mu tontu ko ci te mujjug xadis loolu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne fa innahu Jibril ataakum yuallimukum diinakum mooy jibril dafa ñëwoon doon leen jàngal seen diine ci la borom xam-xam yi kon tënku ba wax ne kon diine weesuwut ñetti xaaj yooyu mooy imaan islaam ihsaan xaaj bu njëkk bi muy islaam mooy yittewoo mbooleem xeeti xam-xami jaamu yàlla yi fës ak jëflante bi dox ci diggante nit ñi moo am boroom xam-xam yoo xam ne loolu rekk moom lañ yittewoo ñu leen tudde al fuqahaaw kon imaam islaam moom la ñuy wax fiq léeg-léeg xaaj ñaareel bi mooy imaam mu aju ci wàllu pas-pasi xol yi ñi gëm yalla ñi gëm malayka yi ñi gëm téré yi ak yoonte yi ak bës bu mu ba ak dogalu suñu worom bi loolu it am borom xam-xam yo xamni mom rek la gëstu diko yitté wo ñu leen tuddé tuddee ulamaw tawxid xaaj boobu ñu koy tuddé iman de ñu koy tuddé tawhid beneen xaj bi moy ihsan moom it moo aju ci walu ruux ak xol té yoonte bi gàttaloon ko ci ne ko an ta'budallaha allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak xaaj boobu moo aju ci mbooleem xeeti ni ñuy jihaade ak sa bakkan jàngoro yi buuf ci xol nan lañuy fexe ba xeex ak moom ba génne ko nan ngay fexe ba dëkkal ci sa xol jikko yu rafet yu baax yu sell yi ak nan ngay àggee ci li ñu tudde ay maqaamaat te danañ ci ñëw mooy muñ nan ngay nekke ab muñ kat dëgg-dëgg nan ngay nekke koo xam ni soxool ak ëdd du ko dëkki imaam Xasaali dana wax ne ñaar dañoo jege te bokkuñu ak wér nga xam ne nga xam ak wér ak nga dund ak wér xam nga ñaar yooyu bokkuñu dëddu masalan nga xam dëddu ak nga dund ak dëddu ñaar yooyu bokkuñu yooyu nag xeeti maq loolu la ñu ay maqamaat yooyu nag xam-xam bi koy jàngat moom la ñu tudde xam-xamu tasawuf يونت بدون كتير على إحسان كن يت خارج الإسلام يوم مام لسنت وخن وانتبه في أن دين الله أقسامه جيم بلا اشتباه أولها الإيمان والإسلام بعدهما الإحسان لا تنام فأول يصح بالتوحيد والثاني بالتفقه الحميد وصحة الثالث بالتصوف فالجمع واجب بلا tawaqufi kon imaan buñ ko waxee ñu ngi ci jublu tawxiid xam-xamu tawxiid waaye buñ ñu waxee islaam ñu ngi jublu xam-xamu fiq bu ñu waxee ixsaan ñu ngi jublu xam-xamu tasawuf kon loolu mooy xaaji diine yi am